mais Dalia ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi lay fay bu baax di la sant di la gërëm. mais Dalia amu ko combat. waa man de boobu ba léegi bi ma ñëwee ba léegi gars yi kenn ñemewul ma jël quoi. sa combat kan la ñuy dox. man wuli laa soxla ñu ne ma wuli am na combat. ma ne ñoom ñaar ku ci daan dima bi bi bii di ñëw pare naa pour bëreeg wuli wala pour bëreeg comme police bi quoi. kon dima da nga ñëw baax. waaw dama ñëw baaxu si parce que man maa ngi nekk écritage nga pare naa pour bëreeg ñëpp man daal l'essentiel li may wax na gars ñëw ñu bëre ma may gars yi seen parce que def naa ci làmb loo xamante ne kenn dootu ma parce que ku tudd ku tudd làmb ne newoo Tapha Tine rek yaakaar naa ne waxoo lamb parce que ku nekk écrit tay si nga nekk écrit euh, keppaar ëmb seen yaakaar naa ne ci làmb nga bokk daal. Tapha Tine ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi lay fay bu baax du nuyu waa Pikine gépp du nuyu waa Maris du nuyu waa waa garage Honda du nuyu ñëpp di la ñëw Tapha Tine pare na pour jox gaa yëpp sax.